koor de day loo xam ne buy jeex sunu borom daf ñu jàngal luñ ñu tuddee solidarité solidarité mooy maanaam kon su boobaa bokk liñ am bokk liñ am tax ñaari nit ñoo nekk ci àdduna si kii dafa am kii amut kii am léeg-léeg mu am lu ko ëpp ki amut léeg-léeg du am dara bu ñu wooree ba koor gi jeex nag ba des benn fan ñaar jàpp ñett ñu ne képp koo xam ne jullit nga góor jigéen mag ndaw ak loo mën a doon nga làmb sa poche def benn participation huit cent francs su ko defee ñu dajale ko jox ko miskin yi ak yi miskin yi mooy ñi nga xam ne mën nañoo yalwaan faqir yi mooy ñi nga xam ne amuñu mais ñoo yalwaan parce que contexte bi mayu leen ko euh, boo defoon calculu euh, Sénégal bu ñu ne woon tey quinze millions la ñu par exemple quinze millions yëpp war a joxe muddum koor ku ci nañu laaj la huit cent francs yaa ngi am douze milliards xam nga douze milliards bu ñu ko dajaloon fi nekk nii teg ko ci loxo lu ne la mën a jural réew mi loo tax l'islam daal di tëral solidarité bu tuddee ko muddum koor bu ñu xëyee mu tëral ci lu ñu tuddee julli ko julli xëy na ren ni feebar bu mel tax na mën naa am du mel nam daan mel yu wees yi waaye mën nañu jël ay matuwaay yoo xam ne dana tax ñu mën a waajal julli gi waajale ko selon ni nga xam ne nun la contexte bi joxe te mooy ñu dandante raxasu ba la ñoo ñëw sangu ba la ñoo ñëw indi sa sijaada spécial takk sa masque laal gel daal di ñëw ci jullikaay bi su boobaa mën nañ ko def imam bi ka xam ne dañoo nekk ci contexte boo xam ne bokkut bañ nekkoon mu gàttal xutba bi gàttal julli gi yewi nit ñi loolu mën naa nekk incha allah jërëjëf si laaj ba am sala bi mudum koor bi su desee benn fan mën nañ koo génne bu desee ñaari fan mën nañ koo génne au plus tard nañ ko génne bala ñoo dem ci jullikaay ba bu ñu xëyee ñu ne dañuy julli 9h30 la ku xëy rek 7 la ngay njëkk def mooy lekkal dara waaye nattal sa mudum koor balaa nga ñëw ci jullikaay bi ndax nee nañ ku julli ba noppi dem di ko natt génn woo mu danga ko war ab sarax nga génne loolu tax ko dañ koy def avant ñuy julli ji wala avant julli gi waaw loolu day njàngale mu rëy la léegi sax ñu ne addis ba nangam addis ba nangam mais njàngale mu rëy la euh, tey sa caméraman bi bu fekkoon dafa def benn demande fenn ñu laaj ko ñeenti papier papier benn bi tudd dix jours yu njëkk ci koor gi deuxième papier di tudd deuxième dix jours yi troisième bi tudd quatrième mu des benn papier mooy mu muddum koor léegi bu indi woon bu indi woon dossier bi mu manqué benn danañ ko nangu duñ ko nangu kon ki wax ne woor leen fukki fan wooraat fukki fan wooraat fukki fan génn muddum koor mu dum koor mi mooy complétif yi moo tax mag ñi buñ pour ñu dégg ko ñu ne dañ koo aj fii ku ku génn sa muddum koor sa koor jàll loolu rek lay tekki donc moom mooy mooy mottali mooy mottali dossier bi ndax mu mat dossier bu matul nag foo ko déposé buñ la ko delloo te dañ ko fay teg rek ba nga dellu waaw mu dum koor kan moo koy génne mooy jullit bépp a koy génne góor jigéen mag ndaw ku am rek léegi li ñu bëgg mooy su fekkee mu dum koor jot na nga ñëw làmb sa poos gis ci mille francs génneel ko sa bopp. bu lax sama papa génneel ma ko bu lax sama yaay génneel ma ko comme am nga 1000 francs sa poche génn ko muy sa muddum koor su fekkee mënoo ko génnoon nga dem ne papa suma muddu koor rek ni mu boole ko ci muddu koor yi séddale noonu lañ koy defee léegi ki nga xam ne dafa ñëw ci bis bi amul muddu koor amul dara far ñu jox ko muddu koor mu am dépense bés bi lu ca teg rek na ko génne ndax nee nañu muddu koor du wàcc kenn fii ba ah, ah, kooru 2021 muddu koor mi ngi lay mi ngi lay mi ngi lay topp rek diggante bi nag peut-être xanaa mën nga fi am xéewalu 1000 nga daal di koy génne. Euh, julli gi ñeenti rakka la yonent bi alayhi salaam lim fi nekk lépp musu ko rate liñ na musu ko rate nag moo tax ñun ne jul benn ku jul ko ba mu ko rate moom it daaw dem sel day yóbbu soxna yi yóbbu xale yi yóbbu jigéen ñi